asalaamaaleykum mbokku internet yi samay contact ci facebook samay soppi ci facebook euh, man Émilie Diop maa ngi balaa may commencé xel day fattu ma ñaanal sunuy mbokku musulman yi commencé koor gi tey ak ñi ko commencé démb di leen ñaanal ngeen dugg ci bisimilah jénn ci alhamdulilah di ñaan yàlla lépp loo leen fa ñaan mu boole ñu ko ci lu baax di ñaan yàlla fe li ngeen di ñaan yàlla na bokk feebar bi nekk ci àdduna lëmbe ñu tiital ñu jaaxal ñu yàlla teggil ñu ko di ñaanal ñëpp jàmm ku nekk di la nuyu di la sant fi nga toog tey man dama ñëwoon pour pour def euh, pour euh, ay question yu ma bugg rek ñu indil ma si leeral parce que nit di nga dem ba jaaxle soo jaaxlee nag dangay dellu fa nga jóge nga laajte waat parce que nit mënul xam lépp man damay liggéey Petrosen laay liggéeyee mais temps yi dafa am lu lu lu lu ma jaaxal parce man dama ne société soo demee bay wax waxu restructuration war nga ci boole personnel bi mais soo amee personnel boo xam ne dañu pacifique ñu xuloo duñu xeex tamit dangay wax ne naa naa foncé rek su ma defee ba pare dara tamit yàgg nañ si loolu lu tax ma wax loolu mooy ñun Petrosen SA moo mu sa nekk man je fais cette année 35 ans à Petrosen je suis à Petrosen depuis 1985 donc euh, tey si ñi gën a ki su mun naa ni maa fa gën a ancienne à part directeur général bi si ñi gën a mag tamit si laa bokk ñaari nit walla ñett maximum ñoo ma fay mag ñu gis loo xam ne neexuñu nit ki nag soo amee lu la neexul te amoo foo ko jooyee yàlla di fa def jamono léegi soo waxee ñu indil la ay éclaircissement tey ma ñëw pour def ay lajte Petrosen bi mu nekkee Petrosen euh, SA ba découverte yi am lépp am dañu yeewu ñu ne ñu dañ koy def euh, dañuy restructurer def ko holding ndax ay filiale ñu nekk si nekk si nekk si nekk si nekk ba yàlla sottil ko ba léegi ñun mënuñu xam lu si nekk dégg lañu am communication zéro ñu yeewu ñu nommé directeur filial Prédine monsieur Manar Sall yeewu nommé directeur filial EP monsieur Joseph Medou muy benn promotion interne bu ñu neex ñu toog lu yàgg nommé wuñu directeur holding ñu ne ñëpp commencé ti wax dañ koy dàq dañ koy dàq dañ koy dàq dañ koy dàq moom moom ministre bu ñëw ñu ne dañ koy dàq nee naa leen bàyyi leen jàmbu yàlla ko fi teg liggéeykat la am na wërsëgam bàyyi leen jàmbu ku ñëw ñu ne dina ko dàq mais nag yàlla moom soo ko gëmee toog tànk heure bi jotul doo dem ñu yeewu ñu ne donc directeur boobu ñu ne woon dañ koy dàq ñu nommé ko ka nekkoon directeur wu Petrosen SA ñu nommé ko Petrosen Holding ñu nekk noonu nekk noonu nekk noonu ñun daal suñu yeewoo tous les jours conseil conseil sur conseil conseil sur conseil conseil sur conseil conseil sur conseil conseil yi moom xam naa ne administrateur bu si tabaxul kër dootoo tabaxati kër si say indemnité sakkat na bari na ñun ñu toog rek personnel bi ni ay xar ñu nit ñoo nangu ba dee ñu di toog di toog di toog di toog di toog ba yeewu dégg ci couloir yi euh, monsieur Sall moom ñëw na wax na présenté na budget ak yépp il a été convaincant jox nañ ko li mu yelloo tànn na ñi mu bëgg a yóbbu léegi euh, monsieur Médou tamit macha allah yàlla jàppale ko dem na budget jàll na mu des budget holding budget boobu nag moom mënul jàll mu ngi ci quatrième conseil budget bi mënul jàll ba léegi heure bu ñu demee ñu am problème te li gën a metti ci mbir mi mooy du restructurer ñun personnel bi xamuñu lu xew luñ ci am rekk ay brut ngay am fii brut brut nga dajale su yàggee tu te demandes dëgg la du dëgg mais loolu nga si am am na si yoo xam ne saa se vérifie dëgg la normalement premier avril bi ku nekk waroon na dem fañ la affecté ñii dem filial dem filiale ñii dem filiale ëppee dem ñii dem holding dem ñii trading dem lenn daal laa leen mun a wax ñay dem trading moom leer na dinañ dem trading ñooñu moom leer na trading lañ jëm mais nag gisuma benn lettre bu officielle bu ñu bind même suñuy dem trading man je pensais que Petrosen holding bi moom mooy bind liste yi ku nekk lettre ne la léegi affecté nañ la kii fii yow fii lañ la affecté léegi yëf bi nii la mel ñun daal loolu yëpp amuñ ko si trading ñoom kenn duma ko wax comme je descends tard am na benn jour gis naa leen ñoom trading yëpp ñoom itam macha allah. ñu ñëw foofu réunir ak seen patron donc nee nañu ñoom seen directeur nee na Petrosen si boppam moom 16 personnes la fa jël te 16 personnes sax yi mu jël xamu leen il a fait confiance à quelqu'un qui quitte Petrosen pour aller chez lui nekku na jël 16 na na jël 16 personnes yoo xam ne mooy équipe donc bi loolu yëpp weesoo temps yi Euh, amicale lañu am tombeex mbas mi ci réew mi ñu metti ñu confinement ñoo yeewu ñu ne nit ñi confiné ils ont réquisitionné benn nombre de personnel bu bu strict département bu nekk am ñu la représenté suñ la soxlee soo war a liggéey nga ñëw liggéey dellu noonu noonu noonu ba ñu dégg ne amical du personnel bi ñun amuñu syndicat ñun xamuñu luy syndicat ñun amical du personnel lañu am moom la ñuy waxtaanee moom la ñuy defee lépp li ñu si am daal mooy amicale du personnel bi def nañu benn def nañu benn groupe neen ak léegi ñoom vraiment dañu bëgg ñu wax leen lu xew parce que quand ñu ngi toog di xaar di xaar di xaar ba léegi janvier ba tey jii kenn xamul lu xew kenn xamul looy def kenn xamul looy lijjanti yu baree ngi taxaw ñu njëkkee. si directeur EP mu recevoir leen wax ak moom ñoom expliqué ñu laaj ko mu expliqué ñu jóge fa dem si directeur holding mu wax leen tamit jooy leen tamit ñu demandé audience sa président conseil ba muy Abdourahmane Seck Omer ku ñu ràññ si réew mi mu ne leen di ngeen di seeti directeuru trading ba pare soo leen fa jógee ngeen ñëw maanaam daal loolu en mooy dem nañu fépp mais jëleewuñ fa lu costaud parce que wax bi wax bi mooy dellu leen ci directeur holding bi moom mooy embauché loolu daal lañ leen wax ba léegi mooy embauché d'accord nañ mais man wax li may laaj tey mooy su nekkoon ne Petrosen Petrosen SA la woon mu nekk euh, benn entité entité boobu ñu nommé woon fa benn conseil président conseil d'administration en la personne de euh, Abdourahmane Seck Omer tey suñu demee ba restructurer ba def euh, Petrosen en trois sociétés holding trading ak Petrosen EP est-ce que ku ne ñoom ñëpp ku nekk ñu nommé la jox sa décret sa de nomination est-ce que PCA bi warul am décret de nomination bu bees parce que quand moom sa SA lañ ko nommé woon léegi mu ñu ñëw ñu tas Petrosen 3 ñu ñu ñu mu bugg a doon toujours président wu ñetti ñetti euh, ñetti société yépp loolu man tamit ma siy laajte est-ce que lu lu lu légal la damay laaj nag xuloowu eh, ma aw ma aw ma aw ma si eh, du ñàkk jàmmax kenn ñu ma si war a am jàmm am naa si jàmmax ñoom mais damay laajte parce que tamit nit soo xamul dangay laajte pour ñu expliquer la parce que tamit munoo nekk si benn biir kër rek ku nekk di wax ne lii la lii la nga gëm ko di nga dem ba léeg-léeg dangay sonn si wax bi dangay bugg a xam nu mu demee parce que tamit man je me dis holding eh, waroon na am am wax na am euh, lu mu mun a nekk euh, euh, war na doon dara par rapport wax filiale yi ñaari filiale yi mais loolu man dama si gisul dara Omer daal mooy mooy président conseil d'administration ñetti filiale yépp mooy buum mooy bumi mooy mooy bumi moom ak ay administrateur yëf yi nag dafa tàggataange fi mu toll nii moo tax ñu ñuy laajte li loolu amee biñ demee wax nañ leen ne waaw am na ñu ñëw fii di ñu recruter lii dugg na fii génn na fii y a deux jours trois jours ñu gis ay euh, ay affaires yu aw si ñu jot ay yëf yu aw si euh, si yu jàll si réseaux sociaux bi ñu koy paasante ñaari alerte yuy wax waxu Senelec benn bi mu ne Matar Cissé cède au chantage d'un de ses hommes de main à la Sénélec. Le DRH, démissionnaire qui lui lance Soit tu me trouves une place ailleurs ou je déballe. Matar s'est empressé de le caser à Petrosen. beneen alerte bi ne Matar Cissé attends beneen alerte bi je je je vérifie mu ne alerte pourquoi le derage de la Sénélec, Bachir Sall, a démissionné pour aller se réfugier à Petrosen. ah xam nga réseau sociaux moom léegi loo si dégg rek am na lu si am effectivement Bachir Sall mi xale yi wax nañ leen nekk dafay dañ leen embauché mais embauché am Petrosen yépp directeur bee leen embauché moom PCA ba nee embauché fa am yëpp directeur bee ko embauché mais suñu nee expliquer moom lu tax quatre conseillers ngi nii heure bu directeur bi ñëwee mu dàq ko munul fexe ba amb munul fexe ba ñu entériné euh, budget et tout ça yaa anguille sous roche waaw directeur bee embauché effectivement directeur mooy embauché mhm. léegi bi loolu amee effectivement Bachir Sall dañ ko embauché mun naa ko confirmer dañ ko embauché te il est secrétaire général lañ ko jël Petrosen secretaire général boo xam ne nag mun nañ ne mooy directeur général ba parce que képp kuy personnel ci holding ba hormis je crois benn personne ñëpp ñëpp ñëpp muy chef de département ya chef de division ya ba ci planton ya tout le monde rencontre à Bachir Sall Tout le monde, j'ai dit, tout le monde, à l'exception d'une personne, je crois. Tout le monde y rend compte à Bachir Loolu ce n'est pas un secret de polichinelle parce que <laughs> bi demee si xale bi xale yi bi ñu demee wax nañ leen ko. Bachir Sall daal daa ñëw ñu nommé ko directeur mais comme mënuñ ko nommé directeur ñu tuddee ko secrétaire général. te man loolu ñuy wax secretaire général dama si bëgg a taxaw parce que postu secretaire général boobu dafa mus a jub Petrosen. bi découverte yi feeñee ñu ne est-ce que DG Com du ut secrétaire général mu allégé ko kooku toppatoo tout ce qui est administration moom mu consacré boppam si affaire euh, si affaire euh, technique bi parce que ça lui prenait beaucoup de temps ñoom ñu tontu waa conseil ba tontu ne seen patron Omar Seck euh, Omar Seck Abdourahmane ne secrétaire général président moo koy nommé te Bachir Sall mii tey président nommé wu ko su nekkee euh, euh, message yi ñu jot ci euh, réseaux sociaux yi dëgg la man dama bëgg a wax ni coow lan la Bachir Sall di tëkkoo di tëkkoo tëkkoo Mactar Cissé ba démissionné fa su nekkee wax bi ñu waree ndëbb ba mu koy menacé man nag sama xel dafa dafa sob ma ne kon mbokk Badou Bachir nii mooy épicentre akile mi yëpp lëmbale réew mi loolu nañu si leeral tamit muy demee lan la parce que yóbbu ma walla ma wax léegi nag dama bëgg a laajte ndax kon Bachir Sall man tam lool loolu dima siy laajte parce que tamit damaa dañ kump dima bëgg a xam li xew menaces yi su nekkee dëgg la moo ko def moo ko wax ba nit ñi di ko wax di ko partage ci réseaux sociaux yi dañuy wax lu tax lan donc kaawu ba kaawu Bachir Sall mu ngoog dañ ko jël Petrosen daal mun naa ne directeur général la te man mënuma comprendre Bachir Sall à cinquante cinq ans mu nekk directeur technique mu nekk directeur DRH avec autre chose je sais pas gis naa ko ci seen euh, kii bi parce que soo duggee ci internet c'est là-dedans di fa jóge pour ñëw Petrosen bi Petrosen di metti moom dafa neexoon si moom directeuru Senelec am nga xaalis lu ko tax ak avantage yëpp mu bàyyi ko fa pour ñëw nañ ñu wax lu tax mu ñëw ndax lu tax ñu bu ko fa dugal pareeguñu ñu ñu ne ñu am na keneen kuy jógeeti Senelec ku ñuy wax Ousmane Sow Ousmane Sow moom man moom bosam def ma sax xaw a jaaxal mënoon na ñëw sax moom kenn passé inaperçu suñ ko defoon li ñu war a def mais dañ ko deful parce que nee nañu expert financier la mais nag euh, am naa lu ma lu ma metti kon Sénégal li xale yi di jàng yépp amuñu expert financier amu fi li may dégg ci chômage yëpp ak diplôme yi ñu am yëpp Sénégal amul expert financier benn expert financier moo fi am muy Ousmane Sow société bu ñu war a def restructuration moom lañ fay yóbbu Ousmane Sow nee nañu BOAD la nekk BOAD mooy euh, employeur am diñ ko mettre à la disposition du à la disposition du Sénégal du ministère de, de des finances donc nee nañu yooyu yaay ba Petros euh, ba Senelec di restructuré moom la ñu yóbbu moom moo def lépp léegi Petrosen restructuré na Petrosen war na uti ay fonds nee nañu moom rek moo ko mun Sénégal ñu jëliwaat ko indi ko mais man première ligne de crédit yi nekk fii si dëkk bi waa ministère énergie seeni technicien waa Petrosen techniciens yi financiers yi ak juristes yi waa ministère des finances ñoom ñoo ko dox ba mu sotti ñoom ñoo ko dox ba mu sotti am cabinet bu leen accompagner donc man su nekkee ne loolu ñuy wax dëgg la ñoom euh, fay ñu naar ba xoromam parce que ministère des finances quand lu ñu dee dee dee dee war nañu mun a am ko occupé poste boobu Petrosen parce que ña doxoon ñu commencé woon dossier ba anañu ñu commencé dossier ba anañu kii kenn dégg ko woon si dossier bi lépp sottee rek ñu indi ko bugg ko fay ay millions yu baree baree bare fuñ ko teg yooyu yëpp waxuma ko mais su nekkee moom dañ ko indi ba dee di ko fay ñu tegal ñu ko mais conseil la mun a doon conseiller financier dong la mun a doon conseiller parce que nee nañ day ñëw eh, mooy représenté ji état du Sénégal fu état war a uti xaalis moom kese mooy dem négocier ji ko yàlla na ko yàlla jàppale. mais dafa ñëw ñu nommé ko directeur man directeur bi ñu ko nommé mooy sama problème yow nga ñëw pour jàppale lu ana sa yoon si yow sa si organigramme société ba ñu lay nommé directeur. ana sa yoon si organigramme jàmbur ba ñu war la fa nommé directeur na yem ngeen xam ne nag am na am na am na luy ñuul si yëf yi si soow mi muy ñaar ndax dama leen di laaj ku ñu détaché koo xam ne employeur am BOAD la mu ne dañ ko détaché yooyu yaay parce que c'est le seul Sénégalais qui peut faire qui est qui est négocier pour l'État du Sénégal mais su ñëwee si société sa Sénélec ba mu jegee de conseiller la fa woon mais mu ñëw Petrosen neex nooy ñu nommé ko directeur finance et comptabilité je crois ou ces bêtises là muy beneen deuxième laaj bi premier bi troisième bi sax premier bi mooy ndax Omer Seck est encore légal parce que man je pense que Omer Seck li mu def yëpp c'est caduc il peut plus être PCA dañ ko nommé woon PCA wu su Petrosen SVA loolu jeex na kon moom mandaam jeex na na uti décret wax naa affaire Bachir Sall nañ ñu wax Bachir Sall lu tax ñu bëgg ñu ko indil di ko jël di ko teg ci suñu kaw. parce que directeur ba Macky sàll nome muy du Faye moom directeur technique lañ ko def amu fa benn kàddooti léegi te su ma paree dinaa lu tax ñu wax loolu yëpp wees toujours Sénélec ñu dem jëli ji ku ñuy wax Oumar Kandé dafa yore il est il chef de projet à la Sénélec projet bu ñuy wax NIS SIC moo ko yore depuis 2017 ñun Petrosen sincèrement suñu amee département euh, euh, département euh, informatique doy nañu sëkk te mu nga fa liñ ñu indi nii soxluñ ko su nekkoon ne découverte yi tax ba yeboo ñu lem seen kaakate dem ndi compagnie yi 2023 lañ doon wax bu yeboo ñu séntu leen 2025 ndig baril bii wàcc pandémie bii ñëw xam ngeen ne ku dof kan moo dof si milieu pétrole gaz bii fi ñu toll nii lépp la ñuy arrêté mais loolu yëpp man jaaxal ma si si Omar Kandé mais li ma jaaxal si Omar Kandé Omar Kandé 59 ans la am 59 ans. yow cinquante neuf ans naka nga koy euh, euh, embauché te mu yore projet di liggéey yore liggéeyam te xale yi nekk fi loolu tamit ma bëgg ñu ñu leeralal ma ko man embauché yëpp mettiwu ma parce que man mii di wax ak yéen soxlu ma poste Petrosen dama leen doon tooñ depuis daaw dama ne sama directeur financier ba mu promettre ma ko ma ne ko man ça fait trente cinq ans ma nekk fi liggéey ci chiffres yi dafa metti léegi xam nga loo may defal man dangeen may soulager yóbbu ma fu gën a lu gën a oyof ma jénn comptabilité bi parce que je suis devenue maladive très maladive parce que à mon âge aw ma du ma xaaruma kenn sama liggéey si je dois descendre à 23 heures damay toog liggéey ba 23 heures minuit damay toog ba liggéey ba minuit daf say am force toll nag dootoo ko mun a ji et c'est dur ku ma waxoon ne ren arrêté comptable yii dina ma fekk foofu ma ne la di ngay fen parce que ba foog ne maa si nekk ne maa ngi foofu ba léegi moom rek lañ ma wax faalitewu ma foofu mais nag yàlla lu mu tudd kenn mënoo si dara mais ñii ñoom il faut ñu wax ñu fu ñu jógee ah lu tax ñu bugg leen ko indil parce que ba muy metti ñoom dañu nekkoon fu neex ñi ñi jël tey bëgg leen euh, rétrogradé sànni leen ñoo fa nekkoon di xuloo di xeex ñoo xeexal Petrosen liggéeyal Petrosen jox ax ax yelleef liggéey ba ay xale yu liggéey fa nekk compétence yi ma fi wax yépp am na fa compétence yi yépp di fa am biir Petrosen man su nekkoon appel à candidature la ñu def sax ñu posté ko ñu euh, en fait ñu ñu def appel d'offre international wala national ñoo xam lu ñuy def nit ñi ñëw déposé ñu nekk si biir Petrosen déposé ñu def commission ñu dépouiller ku gañe ñu xam ne sa yaa ko mi man forcing bi moom a metti lu tax ministre Macky Sall yi ñeme roxos ñoom société bu ñu leen jox ñu roxos ñu ñoom ku ñu nommé ministre rek jël nga di def ba mu fees mais bii dafa ëpp lu tax lii parce que monsieur le président Macky Sall ñetti ñoom dañu nekkoon fu neex ñi ñi jël tey bëgg leen euh, rétrogradé sànni leen ñoo fa nekkoon di xuloo di xeex ñoo xeexal Petrosen liggéeyal Petrosen jox ax ax yelleef liggéey bi ay xale yu liggéeye fa nekk compétence yi ma fi wax yépp am na fa compétence yi yépp di fa am biir Petrosen man su nekkoon appel à candidature la ñu def sax ñu posté ko ñu euh, en fait ñu ñu def appel d'offre international wala nationale ñoo xam lu ñuy def nit ñi ñëw déposé ñu nekk ci biir Petrosen déposé ñu def commission ñu dépouillé ku gañe ñu xam ne so yaa ko mérité mais man forcing bi moom a metti lu tax ministre Macky Sall yi ñeme roxos ñoom société bu ñu leen jox ñu roxos ñu ñoom ku ñu nommé ministre rek jël nga di def ba mu fees mais bii dafa ëpp lu tax lii parce que monsieur le président Macky Sall bi fi mu woowee les les les les les experts pétroliers ñi fi ñëwoon bu yàggul ak bi muy def journée du pétrole fële jëm ñaajo di fa defoon wii wii ñii suñu dafa waxoon tamit ñii suñu ñëwee euh, y a un prix à payer et tout ça donc ñoom xaaraguñu ñoo ñu yegsi ñu ne kon boog nañu jël suñuy nit teg leen fa prix à bi ñoom la am na ñun ñu ko liggéey démb ak barke démb ana xale yi ko liggéey démb ak barka démb ana ñi si ñaq sonn si guddi bëccëg daw amatoo vie de famille amoo dara tey mu neex ñu jël ñeneen di leen ko jox ñoom ñu bugg ko mérito ñenn nañu toog non on dit non loolu mënul nekk loolu moom mënul nekk mënuñ ko dégg bi loolu weesoo tamit muy samay question yi ma bëgg sincèrement ñi seen xalaat nàcc si wax yi ma wax ñu jàppale ñu si mais am na lenn loo xam ne lu ma metti la man daf ma metti torop torop torop torop torop parce que lii lépp li ñu ko indil mooy sunu PCA Abdourahmane Seck ak sunu directeur bi mu sa doon sunu directeur Mamadou Faye dañu mel ni xaj ak muus muusuñu juboo musuñu juboo musuñu ñoom daal juboo moom PCA bi moom il ne supporte pas Faye il ne supporte pas est-ce que Faye le supporte ça je je pas mais moom il supporte pas ku jege fay it il te supporte pas coow lii lépp si moom la jógee Abdourahmane Seck parce que daf am na influence ci administrateur yi dafa am benn influence ci administrateur yi ñoo xam nag lu tax su waxtu bi jotee dinañ leen wax lu tax parce que dem na ba jël bëgg jël benn administrateur di ko nommer euh, euh, direct euh, directeur directeur juridique te ñun ñu am juriste bu fa nekk ay ati at nee na yooyu yaay dafa xuloox moom xaw ma ana PCA di wax personnel bay xuloox moom donc moom fi mu nekk geeram mooy juriste bi neexoowuñu financier directeur financier bi neexoowuñu donc ñooñu moom arrêt mais nag yàlla moom lu mu wax rek mooy am lu yàlla wax mooy am PCA dafa waroon tëddee njaaxaanaay uuf ñëpp mais non il a divisé tout le monde ñi ko si neex mu féete wax ñoom moom son seul souci c'était de nous diviser pour que ñi àndax moom ñu xeex directeur ba am na ñu àndax moom ku nekk fi la neex nga fa féetewoo ñii xeex directeur bi ñii bañ a xeex directeur bi coow bi daal la ngi foofu ñoom ñoo xam ndax yàlla lépp dina leer donc man bi ma laajtee affaire yooyu yëpp ba pare ma bëgg a laajte su amee <clears throat> comme li xew holding am EP euh, e am euh, trading grille salariale bi naka la wax a demee est-ce que war am benn grille salariale boo xam ne ñëpp a koy bokk parce que déjà waa holding waa trading ñu ngi nargué nit ñi ni ñoom salaire yi ñu am keneen mënu ko am yàlla na leen jikk seen objectif yàlla nañ ko atteindre parce que suñ ko atteindre Sénégal moo siy gagné yàlla nañu atteindre seeni objectif ndax ña ñu indi ñoom it sakkat nañu donc ñoom tam yàlla nañu atteindre seeni objectif seeni salaire na leen jikk mais man damay laajte rek pourquoi mu war am écart de salaire entre ñetti entité yi ba pare am na lenn lu ma jaaxal su nekkee ne holding mooy holding lu tax holding mënul uuf trading ak EP parce que directeur wu trading moom dafa ne yoonam nekkul moom il ne dépend pas de de Mamadou Faye il n'a pas de compte à rendre à à à à rien à avec holding loolu la wax représentant u personnel ba ñu fa demoon mais foofu dafa juum parce que su xamoon ne dina def su at weer bu dee bu nekk dinañu consolider ne serait-ce sa comptabilité ak yeneen yi kon am na il a un lien avec euh, holding bi may wax directeur généraux yi bañ leen dee leen bañ ministres yi Macky leen nommé président Macky Sall excellence Macky moo leen nommé nommé leen dee leen bañ mais yéen lu ñu leen teg ngeen nangu di sonal seeni personnel di jeexal xoli personnel société yee ngi fi di am yenn problème yi naqaru personnel la ko fa teg parce que personnel daf fay nekk yàgg fa joxe fa ñaqam doo leen ko reconnaître ministre jóge fële am ay nitam ne tegal ma samay nit ngeen teg fa ay nitam loolu moo ñu sonal ñi ngeen di embaucher compétence yi ñu ngi biir Petrosen donc il faut ngeen rétablir bi sur nos droits parce que affaire bi du yombee noonu dinañu wax ba xeex guerre ba daanu arme à la main parce que PCA nee na leen dafa wax ci conseil yi bu kenn commun bu kenn communiquer bu kenn wax ce qui se passe li ngeen di nëbb yaa leen ko xam parce que xam ngeen ne organigramme yi bés bu jénnee organigramme yi bés bu jénnee di ngeen dégg loo leen mosul dégg te su boobaa personnel bi dinañ jóg parce que lu ëpp tuuru lu ëpp tuuru di baalu ak xëy na wax naa ak ariñ wax naa ak mex mais xol su fi jógee dangay wax mag su waxee su jotee jox wax su jotee mag day jóg wax te bi may wax nag j'ai pris tout j'ai mesuré conséquences yi si nekk yépp lu leen neex nañu def xam nga nit buy judd yàlla daf koy bindal man loolu laa gëm dama am benn lu ma yàlla bindal 18 mois moo ma desee soo leen neexee su subaa su ma yeewoo bés bu vidéo bi jàllee ngeen dàq ma duma duma si mer benn yoon duma si wax benn yoon l'éternel jugera mais duma bàyyi man nekk mag nanguwuñ ñoo déglu ñu tëdd di nelaw ba ñu ba ñu piétiné ñu yab ña ñu war a yab yabaale ñu duñ ko nangu man duma nangu ku ma yab te man sama directeur Mamadou Faye dama ko mere dama ko mere dama ko mere parce que yow Macky Sall du la jox li mu lay jox ne la liggéeyal nit ki suñ la joxee ne liggéeyal dañ la laaj objectif objectif pour nga atteindre ko ki nga wóolu ngay liggéeyal ngay xoole ba ñu bugg ñu la xëñ loolu te ba mu mettee ñoo ñu ko gisoon man bu yeboo ñu dàq ma bu yeboo ñu mise à pied ma lu leen neex nañ ma def mais li sama biir xol bi dinaa ko wax parce que nag waa Petrosen ñoo leen gën a xam ne su ma amee lu ma metti dama koy wax te dinaa ko wax mënuma comprendre ñu nekk fa ñun mbootaay di ko liggéey di ko liggéey di daw di ñëw di daw di ñëw di daw di ñëw ba yëfi sotti ñeneen jóge fële ñëw toog war ñoo commandé war ñoo diriger war a def li leen neex ñun ñu toog di xoolee ñun ko nangu maa ngi ñaan nag yàlla yàlla yàlla jàppale ñépp mais nag xeex dina am parce qu'on va nous entendre comme ñoom noonu lañ doxalee xeex dina am dinañu xeex ak dinañu fighting ba daanu suñu daanoo ñu xam ne daanu nañu ñeem foofu dinañu fighting ba daanu suñu daanoo ñu xam ne daanu ñeem foofu di baalu àq ñépp di baalu àq ñépp parce que xol laa waxee sama xol dafa jeex man dama daan am envie di nekk Petrosen di liggéey mais léegi su ma fa jubee sax sama xol bi day bon j'ai plus envie de rester je suis dégoûtée parce que man mënuma gis yenn yi di ko noppee